waa sit yi bokk na ci sit yi ma ni woon ne feebar bi ku koy faj du maaraa ku koy faj du nitumaa mën yàlla dogal na dogalami nag weer nañ ko xaawi suturaam li ma ci doon wax yëpp mooy lii ndax waxi soxna Aida tuddul nee naa leen internet tuddul internet inter denc la tudd bu wax yi wéree coow li ubbeeku soxna ayda nag la mu leen waxoon yëpp yaakaar naa ni soxna Aida dem leen vaar mhm. may borom vaar mhm. du ma wax lu ma gëmut du wax lu ma xamut du ma wax lu ma mënut. te lu ma gis ci réew mi ba ne leen kii li mu def du nii rek du nii. léegi lii ñu bàyyi woon ko mu dund ak feebaram ci sutura. ñu faj ko ci sutura moo gën sama doom Wally Seck. yow engagement boo engagé di nga ko jël. faramareen bi. yow lii du dara Famba yi yaa ko njëkk a soulagé. yaa ko njëkk bàyyi mu xàppi yaa ko njëkk teral. yaa ko njëkk bàyyi yaa ko njëkk a di la ñaan rek. yow doo seetaan lu métti. Mhm. dégg nañ tamit waaw ah, comme ni nga wax rek mu wax ci Wally que ne Wally da ko joxoon 15 millions na ko téel ma ba keroog may am ku mu mën a faj après ñu faj ma. waaw waaw mais yaa geste boobu naka nga ko gisee ak tamit ba xam tey ah, kooku noonu di Fa tey nan lañ ko war a mën a taxawoo. mu faj Fa Mbaye sonn na engagement wu président de la république la waaye engagement wu Sénégal yépp la. Mhm. képp koo xam ne yaay nga wala doom nga am nga yaay am nga rakk am nga mag am nga bàjjan. te jigéen dafa bokk ci société bi. Mhm. ndax ku fi tedd tey rek jigéen a la fi indi. Mhm. may ñaan kilifa diine kilifa aada. Mhm. jeunesse bi képp ku am sa doole booy wane wala booy jaay wala nii laa mel. wala di ko wane. wane ko ci Fambaye defal ni Waly def. Fambaye li mu wax dafa daw yaram Waly jox na ma 15 millions. waaye man maa ko ni téyal ma ko ba ma gis solution. Mm. aussi tamit euh, lu bari jaaxal Sénégal euh, sénégalais yi parce que euh, gis nañ Abdoulaye Diop Khass da ko fajoon andi ay caméra filmer ko yaakaar naa ne loolu dafa dem ba bu jigi dafa jaaxal nit ñi maanaam. loolu néew naa la laaj jeeg poobar bu mu wokk bee bari rek. Mm, am na ñu bari la ca Ndoye Bane waxoon Ndoye booy Ndoye bu Ndoye Bane dafa jar a bàyyi xel. Mm-hmm. man xaw ma ko waaye doomu Pire la. Mm-hmm. te man doomu Njaañ laa. Mm-hmm. macha allah. Euh, Ndoye Bane dafa jar a bàyyi xel gis nga sénégalais. Mhm. même Adamo sax ko bàyyi xel. Adamo. Mhm. Mhm. ku jar a bàyyi xel. génn na ci vidéo yi wax dama ne jëf ji mu ci def du jëf ju tuuti de jëf ju rëy la. gis nga bu nit defee jëf ju rëy. dañ ko naan di def daa rëy. Adamo dafa def lu rëy. lim def du lu ndaw. man faa may ku ko taxawu. waaw mbaa nga teral ko. Mhm. mbaa nga dimbali ko ci sama bopp rek laa koy xool. ndax damay yaay. Mhm. te faa mbay di nit kersa. Mhm. ku ko dimbali man jëmm ji nga dimbali. mais tamit weer ko tamit ba ba ñëpp gis ko te fayoo ko tamit yokk jàngoroom dong bay xelaan ak laaj <laughs> xam nga ni nit feebar ba toll ci moment. au lieu que ko di ko mariner. jàpp ko di ko mariner jël laaj ji di ko sam-sami jël la yee bi jël. poobar bu mokk bi muy sab-sabi nga dem ba fatt xoolal sama xol bi day metti garaawul dama ne bu ma soyaatoon mag ñu baax ñëpp dañuy yeewu ñëwaat réew mi fi na doon soxla sunu mag ñi anniversaire yi ñu leen di defal sax gaame mhm. yi ñu ciy wàtteeg yëpp da ciy baax mhm. xam nga mag ñu baax ñi dañ fi am place mhm. te mag ñi bari kersa ñëpp a ngi dem réew mi ku bari kersa ñi bari kersa ñi munta xaar di xew li ñëpp a ngi dem defante ñaaw li waxante lu ñaaw li li délloo si waat pour ñu bàyyi waat xel mag ñu baax ñi mhm. parce que mag ñu baax ñi leen fi def mi ngi fi seeni vidéo ngi fi mhm. waaye sénégalais yi eh, fi mu dafa mel ni seen machine déggukaay lu baax li moo yàqu mhm. boo leen dee dimbali naan leen wax leen lii def leen nii def leen sarax man ku demoon vaar rek bari na sénégal loo xam du fi xew barke yonent ku demoon vaar vaar yàgg ko buñ doon dem vaar ci soxna Aida di ma déglu sénégalais yi dañ maa ameel njukkal joxe ko sarax bu nekk fii ci Dakar sarax bu ne te sarax bu ne ngëneen la fi ku fi waaj a feebar ma génn ne la yow mi kat lii ngi ñëw ci yow hmm. lii ngi dal yàlla ma def ni ma mel hmm. soxna Aida nii la ko yàlla def hmm. soxna Aida mu sëriñ Salim man soxlawuma ku ma ku ma recevoir ba ma amee sëriñ Salim laa doon multimilliardaire lu ma war a am sëñ bi defal dama ko ba ma juddoo yàlla dogal ma doonu murit la tête ñu des kay. Mhm. mooy sénégalais yi. Mhm. nan may dégloo fi ma leen di waxee nopp garmi yi. Mhm. ak vaar. <laughs> ak vaar maay Messi. <laughs> son ay regret yooyu yaay mu neex ak ku mu neexul maay Messi. parce que don la dama ko judduwaale. man jàngiwu ma. ay dama jàngi woon ay samay fikir ma noonu don la dama judduwaale. da nga judduwaale. waaw ah, mi ngi kii moo ma branché kii branché te du débranché. mi Serigne Saliou alors mi ngi noonu yaakaar naa lu ñu amoon ci ay minutes jeex na. lu defee lu dul tàggatoo ak soxna si. Mm-hmm. ñaan yàlla kuy dem na nga jënd juróom-ñaari bekk suukar wala juróom-ñaari mbuusu soow nga saraxe ko wala juróom-ñaari kilo mburu mm-hmm. maa ngi koy ñaan ñëpp yàlla bu mm-hmm. accident am yàlla bu tolof tolof am na chauffeur yi nelaw na nit ñi dem Touba woo nanu jinne yi woo malaaka yi woo nanu ñëpp sama jinne yëpp dem